boo ñëwee au pouvoir da def li ñuy wax. retour te coow yu mel noonu dégg nañ ko. retour mooy lan tu es obligé permettre ko buy jaay drogue mu jaar sa dëkk. permettre ko buy def trafic bu mun doon mu nekk médicament bu mën doon mu jaar sa dëkk donc loolu dafay nasaxal suñu sécurité. Mm-hmm. nasaxal suñu santé publique. nasaxal également sunu sunu sunu sunu démocratie. mais Birahim am naa beneen question. Ah institution yi. Mm-hmm. Euh, ñun amuñu problème institution dafa mel. Mm-hmm. loi ci wàllu réglement ci wàllu encadrement yépp dañuy gis ne dañ ciy nekk sax en avance yenn saa yi sax ñu jël ñu am ay projet yoo xamante ni futuriste yoo xamante ni dafay dafay yéem nit ñi ci ci yéene bi waaye institution yi nit ñi koy animer dafa mel ni dafa ëpp solo te la causalité première pour pour wax comme philosophie. mooy mënuñu def déconnexion entre sunu élite bi. ak ñun tamit. ndax ñoom ci ñun la ñuy bàyyi ko. Mm-hmm. léegi est-ce que aussi amul ñoo xamante ni saa bu ñu sàccoo dañ leen saa bu ñu sàccee dañ leen a sàccloo saa bu ñu mbuxumee dañ leen a mbuxumloo est-ce que loolu tamit amul beneen liggéey boo xamante ni war war war nañ ko def ci conscience citoyenne wala xaw ma nan lañ koy tuddee ba nga xamante ni kiy ñëw au pouvoir feebar ba fay dale bu ñëwee dina am assez de résilience pour mu bañ a feebar boobu bañ ko dal en plus de parler de de de de, de causalité première mm -hmm. parlerai de causalité substantielle mm gis nga suñu régime politique ni ñu ko tëggee mënoo jokkar bi kenn ci wàllu impunité ci wàllu ñàkk redevabilité ci ñàkk reddition des comptes ci vol escroquerie détournement li ko encadré te tuddloo le président de la république c'est la clé de voûte des institutions tey jii président de la république xam nga souvent dañ koy wax les politiques les politiques c'est des corrompus c'est des corrompus mais aucun politique ne peut être corrompu ou bien ne peut corrompre sans pourtant mu ànd ak un agent de l'administration mënul mhm. nekk parce que homme politique yi yor ñu yor responsabilité laa wax mhm. nga nekk ministre nga détourné wala nga sàcc mhm. nga nekk directeur nga détourné wala nga sàcc mënoo ko def sans pourtant qu'il y ait un un un un agent de l'administration pourquoi c'est très simple parce que les ministres xanaa avec la nouvelle la nouvelle euh, la nouvelle euh, réforme qui entre bu UEMOA bi mais si on parle un peu du passé les ministres n'étaient pas des ordinateurs daawuñu yor xaalis c'est même bu fekkee bu ñu fekkee ordinateur légalement donc bu ñuy nañ nañ va nañ dem au fond des choses. Mhm. aujourd'hui dafa jot qu'on parle de notre administration. dafa jot tey jii nii. mais en profondeur notre administration. président nee na bëgg nañu réformer ko. bu ko bëggee nañ ci dem mais est-ce que. Mhm. Euh, euh, euh, wax ko ak jëf ko dina méngoo. lan moo tax réforme bi yéex parce que depuis moo ngi koy naqarlu depuis 2012 jamono bu nekk def na fi sax ay séminaire ak yëpp mais lan moo tax mënuñu ko réformer. bu fekkantoon jàpp naa ne bu bàyyi na di protéger c'est protégé bu fekkantoon ne libéré na les corps de contrôle dina yomb bu libéré woon la la cour des comptes libérer la justice libérer l'inspection générale d'État libérer nit ñi nga xam ne dañ leen tudd ci aéroport ñu dem devant devant le juge euh, euh, euh, yenn scandale yi mu indi ci leeraange. lu mel ne wàllu Big Togo on va y revenir tout à l'heure lu mel ne Prodac on parle de 29 milliards alors que c'est un scandale de 36 milliards de francs CFA lu mel ne Unidac 2 avec milliards de de de, de le centre international Abdou Diouf. mais yow bëgg ñu changer constitution ndax yow doole ji mu am. bay protéger doole ji mu am bay su ko neexee mu jël document teg ci loxoom nee na mais doole donc da bëgg ñu changer constitution wala ñu changer régime c'est un peu métaphysique mu gëm yàlla xam ne nguur yàlla ma ko joxe ki ki jël xel dóor ci population bopp sénégalais yi bañ votel la war nga am confiance sénégalais yi xam ne ñii da nga votel parce que bi nga leen di laaj nguur gi da nga leen waxoon redevabilité sera c'est demande sociale ñu votel la ci donc ki def loolu war nga mën gëm ci yàlla jàpp ne war nga mun a foncer pour aider sénégalais yi seen patrimoine ak seen ressources financières ñu mën ko yaxanal. alors am na loo xamante ne man ça m'interpelle 2016 ñu nekk même place 2017. 2018 ba nit ñi yegg si mhm. chaque fois ngeen publie rapport chaque fois ngeen def ay recommandations te pourtant ki ñu jàkkaarloo bàyyiwu ci xel mhm. quel est aujourd'hui de produire un rapport mhm. boo xamante ne dina fësal yenn yi te sur le terrain duñ ko appliquer waaw xam nga booy nekk si benn combat du combat wu benn ak ñaar ak ñeent ak juróomi at da nga nekk ci combat bi créer lu ñuy wax masse critique permettre ba citoyen yi xam ku nekk la mos njëriñ xam lan muy njëriñu xaalis ci biir réew parce que tey su ma daboon tey ci mbedd mi na la andi ma sama mais boo ma koy jox tamit di am loo ko naqarloo mm. mais boo ma koy jox tamit mun xam ne moom le président de la République di utiliser ministre di ko utiliser seen xaalis la donc dañ ko war a yaxanal te am ngeen baat ci réew mi baro ngeen jóg taxaw mel na benn say pour laaj que inspection générale d'État Cour des comptes ak lépp loo xam ne organe la euh, dimbale au président de façon rigoureuse et avec vigueur pour que mu euh, demande à ces instances-là de publier les rapports mais également autre chose qui est assez important je le dis souvent les les li qu'on appelle les les les les de fonds les oui. partenaires techniques et financiers dafa jot su nekk nii ñu wax ak ñoom ci benn fànn mënoo chaque euh, mois chaque année chaque semaine nga dem di signer ak un gouvernement des accords de financement sur la pêche sur l'éducation sur la santé te mu wóor na la système de gouvernance bii kii am mm-hmm. baaxul système de gouvernance de gouvernance bi nekkul système de gouvernance de redevabilité ni d'obligation de rendre compte c'est système d'impunité ngay continuer dafa dugal xaalis. mais Birahim est-ce que ñoom ñoom bu ñu xamoon ne bon na baaxul. Mhm. est-ce dinañ ci dugal seen xaalis ndax ñoom jamono bu nekk ñun dañ leen di jël comme ay arbitre de ce que nous faisons ay nattukaay. Mhm. le fait que ñuy dellu tout le temps ci ñoom le fait que banque mondiale di ñëw FMI di ñëw partenaires techniques caution morale aussi benn mm. cutus par rapport ak ñoom ni ñuy doxalee. non wala da nga soupçonné ne foofu dafa am. benn kii voilà justement damay jël question bi de l'autre sens. Mm-hmm. c'est pas pour dem joytu si ñoom mais c'est pour wax leen ne yéen vous êtes quelque part complice de ce qui se passe. kon yëg nañ li xew ñoom. bien sûr. ils sont plus informés am nañ information yi bu fekkente ne yow chaque année chaque jour ñu ne la ñu ngi déglu nit ñi ne nañ la telle institution publié wul sa rapport alors que yow yaa ngi continue te li ngay injecté ñu ngi koy rapport yi nag ñu ngi koy détourné. mais est-ce que ñoom dañoo am yeneen xeetu nattukaay yu dul cour des comptes IGE yooyu. non mënoo ñëw ci dëkk a justice moo fi nekk cour des comptes moo fi nekk OFNAC moo fi nekk bu fekkante nag institution dañ ko dañ tënk téye ko yaa ngi continuer di injecté xaalis lu fa xew complice. est-ce que ñoom nekkuñu di leen jox xeetu rapport yoo xamante ni public yu seen ñun tamit amuñu ko. je ne crois que je ne crois pas je, je sais très bien qu'ils sont très bien informés mais peut-être amuñu gun benn prise de conscience que la mobilisation des ressources ce n'est pas uniquement impôt mais la mobilisation des ressources c'est également protéger nos ressources. le mal de la corruption dafa nekk euh, mal boo xam ni yemul rek Sénégal. parce que li nga wax ci euh, ci rapport bi tey bi ñu la dégloo UEMOA dëkk yi ci lañ bokk. dëkk CEDEAO yi excepté. Euh, Cap-Vert donc loolu tey pour ñu xeex ko euh, dina dina doy waat ci euh, kuréel yoo xamante ne ñoo bokk na ñuy doxalee ñoo bokk seen ambition ngir taxawal ay tëralin ci wàll économique ñoom seen mm-hmm. nga bëgg a xeex corruption te dëkk yooyu yëpp laale nañ ci donc affaire bi nekkatul rek ay peut-être cours de contrôle yi ñoo war leen jox ay ay organes de contrôle pardon ñu war leen jox ay jumtukaay wala jox leen seen autonomie. Mm-hmm. mais war na tamit nekk ci yeneen i facteurs. Mm-hmm. yoo xam ne xëy na moo tax ñu gis ko si yeneen réew yi. Cap-Vert ay Cap-Vert équipe dafa nekk. Mm. ñuy nooyee fa nekk ñam loxo tànk di réfléchir ñoo fa nekk te teewul Cap-Vert zone CEDEAO bi moom rek moo nekku en dehors de la zone rouge et def progression d'un point parce que daaw 57 la def ren 58 ay nit dafa dëkk. lu tax ñu am loolu ñoom. fulla fayda volonté politique ak autorité yu xam bëgg seen réew patriotisme. dañoo raw dañoo raw ci wàllu loi ak yooyu wala lu. Euh, loi ak ci ci ci ci volonté politique. texte yi mi ngi fa te boo xoolee cap amul ay institutions de la corruption non. Mm-hmm. c'est la c'est le le gouvernant la personnalité la première personnalité qui défend fondamentalement la lutte contre la corruption. nga dem ci yeneen dëkk yi parce que du Sénégal kese doo demee tey les Seychelles wala nga dem île Maurice Namibie ay ay nit dafa dëkk. Mm. comme ñun alors qu'il progresse. ki Afrique ki fi raw mooy le Seychelles. rawee na Sénégal lu toll ci vingt

le combat de la corruption dafa nekk combat boo xam ne combat bu bu bu bu pérenne la bu pérenne bu yàgg la boo xam ne da koy teg di teg pas di teg pas volonté dëgg laaj pour nga xeex ko mais li ci gën a grave encore une fois sa inquiétude ma koy dëggal gis nga dëkk yi nga xam ne ñoo nekk UEMOA boo xoolee UEMOA kenn amu ci moyen. Mhm. zone UEMOA n'a la ñoom ñëpp ñi bi te bu méngalee xoolal tey aux la zone UEMOA dëkk yi nga xam ne ñoo gën a confronté ak le terrorisme le Mali le Niger le Burkina Faso. dëkk yi non seulement ils sont confrontés par le terrorisme ils s'enlisent mais et pour et, ils sont dans la zone rouge ils s'enlisent également dans l'IDH mooy l'indice de développement humain mm-hmm. Niger 189 places sur 189 mm-hmm. le Mali 184 ou en ressources minérales donc la question qu'on doit se poser aujourd'hui qui protège et pourtant on a pourquoi on n'a pas aujourd'hui cette volonté de lutter franchement contre la corruption. mais Birahim xam nga fi mu ne ni xeex bu ñu mën di teg. Mhm. dañ koy dañ koy dañ koy dugal rek ci perspective wu. xéewal yi nga xamante ni Sénégal yàlla jox na ko muy pétrole beeg gaz beeg yooyu nga xamante ni réew mu mu feeñ te amul taxawaay bu mat sëkk rek mën naa jur lu ne te corruption dafa bokk tamit ci bunt yi nga xamante ni buñ ko tëjul mën naa jur lu ne ñi fiy ñëw gis nañ ne ñëwagul sax coow loolu jóg na wàllu corruption yooyu tey jii yéen liggéey ban ngeen ciy def tey pour permettre à l'autorité mu bañ a jël yenn yoon yi ci wàllu pétrole bi ci wàllu. exploitation yi ressources yi. alors foofu li na déjà bi ñu waxee ñu commencé ci Petro-Tim alerté mais attention su ñaari bloc yi di ñu ko joxee baaxul d'ailleurs on encourage <laughs> on encourage fondamentalement de façon appuyée au doyen de juge pour que mu indi des éclairages sur non seulement l'affaire euh, Petro-Tim mm-hmm. mais comme l'affaire des 94 milliards c'est une parenthèse mais oui. on l'encourage véritablement mm-hmm. à à à dire aux Sénégalais mm-hmm. quelles sont les conditions qui ont amené à l'attribution des blocs de Cayar et de Saint-Louis damay attirer yéen ma attention bu ñu ñëm ci ay milliards mm-hmm. bu ñu ñëm ci ay kooku beneen affaire la mm-hmm. mais yan condition moo moo tey ba ñu ba joxe bloc donc dama un détour pour dire quoi commencé ko foofu en terme d' alerte. Mm-hmm. bi ñu woowee également ci wàllu euh, participation contribution. nous avons produit un document de plus de vingt deux pages sur le code pétrolier. envoyé ko au ministre en charge du pétrole les deux d' ailleurs. nous avons produit un, un, un document également sur le contenu local envoyé à l'autorité. Nous avons produit un document sur le code, code gazier envoyé également à l'autorité. Nous avons participé à la consultation contenu local, mm. participé également à la consultation revenu pétrole. Mm. Et yemuñu fa on a organisé dañu organisé ay ateliers mm. pour discuter de fond en comble sur ces questions-là. benn atelier mun dese woon c'est sur la sécurité en tant que telle gis nga pétrole bi soo ñett ba ñeent ñeent yi jàppal ne mm-hmm. ñàkk nga ko une gouvernance une bonne gouvernance des institutions président xam fu mu yem yeneen ñeneen xam fu ñu yem une maîtrise de la fiscalité pour xaalis dugg ta sécurité si tu maîtrises pas ta sécurité jàppale d'autres feront dañ dañ def tout pour jëm nasaxal la et su boobaa boo parewul rek jàppal na yeneen dëkk yi nga yam aloo dinañ ñëwaat euh, ci moom si kanam Birahim Seck di coordonnateur général bu forum civil ñu dem seetaan publicité après ñu jàll ci xibaar yi. Thank you. ci ndigalu xalif Maulana Cheikh Ahmed Tidiane Ibrahima Niass yal na fi yàgg te ànd ak wér Cheikh Ahmed Tidiane Alioune Cissé imam de la grande mosquée Cheikh Mouhamadul Amin Ibrahima Niass représentant du xalif à Dakar cher Baye Cissé responsable moral du Jamia li Akhli Khidmatu Cheikh Ibrahima Niass moo leen di yëgal quatrième édition journée jërëjëfee Baye le 15 février 2020 à la place de l'obélisque à partir de 16h ci teewaayu borom xam-xam bu mag bi Cheikh Niass ak rakkam Cheikh Moun Hamina Ibrahima Niass war a def conférence bi sur le thème Islam et le management de l'éducation, la santé et la paix. Ce sera sous le patronage de son excellence monsieur Macky président de la République du Sénégal, son excellence Cheikh Mohamed Koureyssi Ibrahima Niass, Cheikh Aboubacar Ibrahima Niass, monsieur Augustin Tine, directeur de cabinet du président de la République, Moustapha Cissé président du Parlement de la CEDEAO, monsieur Oumar Abdoulaye Daouda Diallo, ministre a Finances et du Budget, Monsieur